wa ala aalihi wa asxaabihi zawil fadli wattamkin wa radiya allahu an cheikhina ahmad attijaani wa an saa'iri muqaddamihi wa xulafaa'ihi ridan ya'ummu al-jamii' wa ba'd assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu gannaaw bu ñu santee borom bi subhaanahu wa taala moom mi nga xam ne moo yeeyoo cant ñaan ko mu wuutuñu julli ñu ci yant yàlla muhammadin sallallahu alayhi wa sallam gërëmal ñu saxaaba ak ñi topp seen jub yépp gërëmal ñu suñ wasiila ci yàlla cheikh seydi ahmed tiyaan yi ak mooli muqaddami tariqa bi ak xulafa om yépp ñu wax mbokki jullit yépp asalaamu aleykum wa rahmatullahi tabaarakallahu ñu ngi nekkoon ci téere bu barkeel bi ñuy wax kitaabu rimaaxu xisbi rahim ala nuxuuri xisbi rajim li sayidina wa cheikhina alxaaji omar ibni saidin il fuuti attoorawi il gadawi muy téere boo xam ne ñuy téere buy défendre nitu yàlla yil di défendre seen cause mulaana alxaaji omar nag radiallahu anhu taalif téere bi pour defendre mboolem nitu yàlla yi waaye précisément cheikh seydi ahmed tiyaani mi sëriñu tariqam di wasilaam ci yàlla yow mi ñuy suivre di ñu déglu yow mbokkub julit mi di nga yëg cheikh omar bopp ba tey mu ngi yaatal di leeral fekk na di nga laaj sax fan la jëm mu fekk dafa am ay xam-xam yu kawe lool te foor yu mu bëgg jàngale ci kanam ci ci gannaaw téere bi xaaju ñaareel bi jëm kaw waaye xam-xam yu foor yooyu comme ay gros la war a utiliser dina la jàngal ay xeetu régle ci xam-xamu sharia ba boo nangoo loolu rek leneen liy ñëw li mu rëy rëy lu mu rëy rëy di nga ko mën a nangu looloo tax sëriñ bi boobu ba tey di def ay fasl yoo xam ne dafay préparer sa cerveau préparer la moralement ba ngëneel yi mu war a wax ci tariqa cheikh na ahmed tiyaani ngëneel yu rëy yi mu war a wax ci cheikh na ahmed tiyaani mu préparer la intellectuellement et moralement ba nga xam ne boo ci agsi dina fekk déggoon nga lu tax nga waroon a gëm loolu xëy na loolu moo tax sëriñ bi yaatal fusul yi yëpp ngir bés bu àggee ci yam ya tax téere bi jug nga bañ a am choc tey nag ñu ngi ci faslu taasi fi iclaamihim an al inkaara laa yajuusu ala alxaqiqati illa liman axaata bi jamici alshariati wa faidatu iclaamuhum bihi an yataxarrazuu an al inkaari al aam wa yaqtasiruu ala ma sarraxa al kitaab wa sunna wa ijmaacul aima wa ijmaacul ummati bihi ijaaban wa taxriiman fa aqulu wa billahi tawfiq wa huwa alhaadi bi mannihi ila sawaa'i tariq sëriñ bi na faslu juróom-ñeenteel bi tey gannaaw bi mu guddalee lool faslu juróom-ñetteel bi ci jàngale ne yàlla wàccewul kenn aaya walla xadis pour nga war a tënku ci ñeenti ngir yi ba ku e, koo ci tàggalikool ñu àttan laa àttane génn nga ci ci diine yàlla waralu loolu mu wax ne nag tey faslu bi daanaka complémentation la rek ci bële mooy dafa wax ne weddi jaaduwul en réalité lu dul koo xam ne maîtriser na sharia bi yépp ba xam sharia bi ak mboolem branche yi kooku rek moo war a toog ne nangam bokkul ci diine nangam bokkul ci sharia ndax mbir pour nga ne nangam bokk ci faw nga maîtriser la ca bokk yépp ba mën xam li ci bokk li ci bokkul gis ku jàng ñaari ci sharia pare di ut lu ci bokk lu ci bokkul te moom jàngi la waroon a def loolu njuumte la moo tax mu ne kon weddi jaaduwul ci kenn lu dul ku maîtriser sharia te njariñal wet xamal leen loolu mooy dama bëgg ñu def très attention man Cheikh Omar dama bëgg nit ñi def très attention ci di def ku ñu gis weddi ko lu dul bokk ñu yem ci loo xam ne texte alquran moo ko weddi wala texte sunna donte doo comprendre ba mu jeex sax waaye képp ku dab daal nit kuy jëf lu alquran weddi wala sunna boo ko boo ko weddee wax nga dëgg parce que ci alquran la dellu ak sunna donte léeg-léeg di nga weddi loo xam ne tekk ci alquran sunna fekk yaa ko déggul waaye boobaa di nga am excuse loolu daal la bëgg leeral loo xam ne nag alquran ak sunna gisoo fu mu ko weddee bu ko nit defee itam il faut que nga def attention parce que doo xam moom lan moo ko animé qaala fi lawaqixi al anwaar alqudsiya fi lcuhuudi almuhammadiya uxida alayna alcahdu alcaam min rasulillah sallallahu alayhi wa sallam an laa nujaadila fi cilmin min alculuumi alshariicati illa bi qasdi nusrati ddin بشرط الإخلاص والحضور مع الله تعالى في ذلك على الكشف لا على الظن والرياء wal xullati wal wa taxmin wa muqaabalati nusuus min akaabiri madhabina wa gayrihim wa yaxtaaju ila man yuridu alamal bi hada alahdi ila cheikhin mutadallicin min alculuumi alsharci qad ittala ala jamici a'immati almadahibi almustacmalati walmundarisati wa salaka tariqa alqawmi fi darajati alixlaasi wa amma man yacmal bi hada al ahdi bi nafsihi min gayri cheikhin fa huwa mura'in gaaliban wa qaala bacda kalaamin wa qad xakaa cheikh muhyiddin fi lfutuxaati almakkiyati inna min waraai nahr jamaacatin min alxanafiyati lam yazal aljidaalu baynahum qaa'iman tuula alsana xataa anna bacdahum yuftiru fi ramadan liyataqawwa ala aljidaali maca xasmihi وقد روى الطبراني مرفوعا إن الشريعة جاءت على ثلاثمائة وستين طريقة قال فلا ينبغي لأحد أن يرد على من يجادله إلا أن إلا أن نظر في هذه الطرق ولم يجد كلام خصمه يوافق طريقة منها وما ذكر الشارع منها إلا وما ذكر الشارع هذا illaa li saddi baabil jidaal bi geyri cilmin taqwiyatan liddiin li anna annazaa li anna nizaa yuhinuhu wa yadcufuhu werante ci sharia baaxul gis nga lawaqixul anwaar ci alqudusiyati fi luhudi almuhammadiyati téere la boo xam ne tudd na ko fi lu bari li imam Sha'rani nga xam ne ay kóllëre yu yonent bi woon ak moom la ak ay pacte mu bind ko ay taalibeem tënku ci bokk na ci wax na ne jël nañu kóllëre ci yonent bi sallallahu alayhi ñu bañ di bari lu ñuy werante ci xam-xamu sharia nit wax dara nga ne ko loolu du noonu nii la werante jeex lu dul bokk ñu jublu ci dimbali diine fekk foo xam ne dañ fa nara a daaneel diine dañ fa nara màbb mabb diini mooy ay nit ñoo xam ne dañoo jël ay atte yu leen neex seen bakkan bëgg ci atte woo bu boobaa nag amuñu droit seetaan loolu il fallait que ñu defendre diine waaye toog daal di werante ci diine nee loolu dañu ko tere lu dul kuy defendre diine waaye mu ànd ak te mooy mu def ko rek te yàlla tax ba pare bu koy def itam mu teewlu yàlla wan ko ci ne li ma ci jublu mooy bañ rek ñu daanal sa diine ji waaye ngistal taxul euh, njorta taxul waaye moom itam bu demee bay défendre l'islam lam koy defendre na doon lu mu xam waaye bu mu doon loo xam ne danaan foog na ak maam diw nee na ma lii ak bay diw déedéet bu mu doon njort na doon lu wóor bu mu def itam ngir ngistal mu ko def itam ngir dóor martu pour am ci lum lum ci am wala naxaate déedéet bu mu ko def itam ngir rek ne téere sangam laa gis mu waxe ko nii wala déedéet few faw mu dem am benn sëriñ bu mu tënku tarbiyawu fa jàng fa ba maîtriser branche charia yépp benn bu ne mu xam dalil yi maanaam référence yi euh, ci ngiru ngir yi nga xam ne moom lañuy jëfandikoo mu yi ñu xam ñeenti ngir yi wal mun darisatu ak yi nga xam ne far na faw mu dem ba maîtriser jàng loolu yépp su ci paree mu soobu ci yoonu gaay yi yàlla yi ba am ci yaqin gu wër kooku moo am droit di werante ci diine naan lii ci la bokk lu ci bokkul waaye bu dee nit koo xam daal moom moo ñëw bëggal boppam rek ne moom dafa bëgg a défendre diine te amul sëriñ bu bu mel noonu ñu wax bu ko mën a orienté kooku li ëpp ci li muy doon mooy nit ku bëgg a ngissal ak ku bëgg wane boppam dafa mel ni kon charte bi dina naxaree dajale ndax jàng ba maîtriser sharia yépp booleeg am sëriñ booleeg tabaarakallaahu looy wax nga gëstu ko ba xam ko sa sëriñ itam teg la ci yoon wu jub Euh, wax dëgg yàlla lii ñi werante ci diine yàgguñu ci boobu niveau bi mu nettalee loolu borom uhudul muhammad yi dafa dafa dem bay expliquer ne góor gi mu wax diin dafa wax ci futuxaatul makkiya muy téere bu yéeme boobu nga xam ne makkatal mukarrama la ko yàlla sole ci moom bokk na ci li mu wax ci téere boobu nee na gis nga ginnaaw dex gii gis naa fi ay kuréel ci ngiru imam xanifa buy wax nag gannaaw dex gi maanaam ku ku ne xam na ne gannaaw golf bi moo tax muy wax te mooy Makka boo fa demee golf ba te mooy boo ko rombee jëm Irak jamon maanaam loolu lay wax maanaam côté Irak yi te loolu ñoom jikko jooju ba tey mu ngi ci ñoom mu ne fekk naa gannaaw dex gi daal te muy côté Irak benn ngir goo xam ne ci imam xani abu xanifa lañ bokk nee nañu ay borom xam-xam lañ suba ba ngoon dañuy taxaw ne dañuy werante boo leen laajee ñu ne noo diine ji lañ bëgg leeral xam-xam lañ bëgg a leeral nee na at mi yëpp mën nañoo taxaw bu ñu waxee ba sonn dem naan ndox ñëwaat taxaw continuer kenn ku ne di defendre idéem ak gis-gisam mën nañ cee nekk semaine ñaari semaine ñetti semaine ba weer mën nañ ko romb benn weer ñaari weer ba atu yàlla ñuy defendre ay masala boo waxee ñu ne diine ji la ñuy défendre nee na nag mu dem ba yóbbu leen ci ñoom ñooñu am na ci ñoo xam ne bu weeru koor jotee dañuy dog lekk ba suur ngir am kàttan gu ñu mën a werante ci diine buñ leen laajee lu tax ngeen di dog ñu ne waaw diine ji la ñuy liggéeyal te bu ñu wooree duñu mën a werante nga xam ne ñooñu seen bakken la ñuy liggéeyal waaye liggéeyalu ñu diine ji ndax kenn bëggu cee daanu bañ a daanu dina tax nga bàyyi woor ngir tabaarakallahu di défendre sa cause bopp loolu xam nga feebar la jële nañ ci yi marfu an ci benn xadis yonent bi sallallahu alayhi wax benn xadis ne sharia bii de jaat ala salaasi miatin wa sittina tariqa noppal leen sama bopp sama diine ji wala diine yàlla ji jafewul yomb na lool ndax trois cent soixante branche trois cent soixante yoon yàlla yaatale na ko ci diine ji te benn bu nekk aw yoon la boo xam ne boo ci jaaree mën ngaa dem ba am ngërëmal yàlla kon xaw naa tollook fane at mi ci weeru xamariya nga xam ne kon ndekete diine ji yaatu na lool ba toll ni weeru maanaam atu yàlla foo ci jaar rek di ngay yegg mu wax ne kon fala yanbagi li ahadin an yarudda ala man yujaadiluhu illa an yanzura an nazara fi hadihi turuq mu ne kon jaaduwul gannaaw diine ji yaatoo na noonu trois cent soixante xaaj wa digg yàlla loolu yaatu na kon jaaduwul kenn di diingat kenn wala ngay weddi kenn wala ngay werante ak kenn lu dul trois cent soixante branches yi danga ko jàng ba maîtriser ko xam ko xamin goo xam ne nii ak fàtte du ci topp ba tax nag léegi ko koo gisati mu wax loo xam ne xool nga trois cent soixante branche yépp gisoo ci dara luy dëppook waxam yow yaay soog a am buntu weddi kooku euh, Cheikh nag ne xoolal rek lii bu ko yonen ci bi waxee jubluwu ci dara lu dul tëjal la buntu werante ci diine ndax ku ne xam ne ne trois cent soixante branches yi euh, li ëpp sax ci maas gi mooy yëguñu sax benn branche bu ne lu ci am ci ay xeetu xam-xam bay xam yëpp wax nañ ne xutbul fardul jaami rek moo mën a xam ci jamono ju ne xam-xam yooyu yëpp moo ko mën a dajale ndax ci lay mat dëgg-dëgg yonent bi ndono waa bu dee dañ ne époque bu ne nag kenn rek kay mën a xam branche yooyu yëpp te yow wér na ne yow mi werante doo xutbu ndax boon xutbu doo werante lii te comme moom rek moo mën a xam li ci bokk ak li ci bokkul ndax moom maîtriser branche yëpp Cheikh Omar nee na loolu c'est juste pour te décourager pour te déconseiller pour nga bari looy diingat ak looy weddi wa sami'tu sayyidi aliyan alxawaas rahimahullahu taala yaqulu laa yaqumu diin illa bi bittifaaqi la bi ixtilaaf ku ne xam na ne diine dafa yaatu lool noo ko déggee rek defal la dal sa xel nga bàyyi ñu ci des ñoom it ñu def li dal seen xel ndax seyde Ali Xawaas dafa wax ne diine de kenn du ko mën a taxawal euh, ci dëppoo maanaam nga xam ne ñëppay dëppoo penku ba saw ne diine ji nii la loolu du nekk parce que benn waay wax na ko nee na lan moo tax ni nga xamee ne moom la ONU ONU amee ay règle yoo xam ne règle la yu international ba kenn ku ne loi bu ne ñu xam ne lii la ci euh, Nations Unies wax moo xam na euh, santé la wala UNICEF wala moo xam organisation internationale bu mu ci mën a doon règle ya fa nekk dafay concerner àdduna bi yëpp ñu ne lan moo tax mënuñu woon réécrire l'islam ba utal ko ay règle yoo xam benn téere rek lay doon bu ko defee penku ba sowwu di ci attewo kuy jullit ñu ne waaw diine ji yàlla yi xataleewu ko noonu ba nga xam ne benn texte rek ci ngay euh, attewoo yàlla da ko yaatal pour lu la jublu rek nga mën a jublu ci lool waaye nekk ci dara nag ne ñoom diw newuñ ci dëgg parce que newuñu ci li ma ne loolu kay mooy bidaat ci diine waaye diine ji yaatu na lool wa fihi rawa al bayhaqi wa tirmidi wa gayrahuma euh, wa gayruhuma marfuan wa xassanahu tirmidi ma dalla qawmun bacda hadyin kaanuu calayhi illa utu aljidaal summa qaraa salla allahu alayhi wa sallam ma darabuuhu laka illa jadalan bal hum qawmun xasimuun gis nga tirmidi ak bayhaqi ak yeneeni boroom xam-xam jël nañ benn xadis boo xam ne ni defal nañ ko marfu muy yonent bee ko wax te itam noonu ñu ko waxee tirmidi rafetlu na ko yonent bi wax ji mu wax mooy lii je cite yonent bi nee na bépp xeet woo xam ne euh, ci coobare yàlla yàlla nar la ne nar la leen a bépp xeet woo xam ne yàlla ci ñoom réer la namm ci ñoom benn màndarga rek lay njëkk a def mooy werante la leen xiir bu leen xiiree ci werante nag olof nee na werante dëgg soow maanaam euh, soow dëgg réer coow moom fu mu bari rek dëgg gi day day riir kenn du nangoo ñàkk dëgg ku ne maa nekk ci dëgg ku ne maa ci dëgg di ko wax dëgg nag bu dee benn téeméeri nit di ko xëccoo ku ne ne ci dëgg am nañu juum yonent bi nee na aw xeet kon bu yàlla naree mbugal leen ci xañ leen njub màndarga bi muy njëkk a joxe mooy xiir leen ci werante wu dul jeex loolu bi ko yonent bi waxee def ci indi benn aaya bu koy dëggal neew yonent bi ma darabu laka tegaluñ la illaa jadalan lu werante bal hum ñoom daal waa quraysh qawmun xasimun dañuy dañuy dañu xuloo rek wa rawaa alcheykhaan wa geyrahumaa marfuaani anna abgadu rijaali ila allahi alad alxasim yonent bi ci xadis boo xam Buxaari ak Muslim wax na ko pour dëggal lii mu njëkk wax nee na góor ñi daal ki ci yàlla gën a bañ mooy ku bari lool lu muy xuloo bari lu muy werante dëgër bopp ndax yàlla sax bi muy wax jigéen ñi euh, aw aw man yunashau fi lxilyati wa huwa fi lxisaami gayru mubin loo tax boolew leen jigéen yàlla bokk na ci lim lim ko wax ci alquran ne mënul mënul xuloo mënul werante wala boog dañ ko ci not ndax du am fasaaxa bi xam naa nag boobu suñ jigéen yi taxul woon muy wax ndax jigéeni arab yi dañ amoon kersa euh, ba nga xam ne mënuñu werante mënuñu xuloo bu leen ci naree fekk sax ñu joy lu dul ñennat ñu pànk ci ñoom kon góor ñi ñoo mën a xuloo ñoo mën a werante ñoo mën a def ay woy di takk fas di jaabante di werante ko xuloo yàlla ne li ma gën a bañ ci góor ñi mooy góor gu mel noonu koo xam ne du wan na baat luñ ko wax mu tontu loolu nag ku indi ci diine ji cow rek nga ci indi lu ñu wax nga critique lu ñu wax nga critiquer lu ñu wax nga weddi loolu feebar la nit ku yeg sa bopp war nga koo faj wa qaala fi baxri lmawruud wa fi fi lmawaathiqi walcuhuud uxida calayna alcuhuud an laa numakkina axadan min ixwaanina yubaadiru ila alinkaar calaa man xaalafa naqla bacd alculamaa ila an axaata bijamiici turuqi alsharicati walam yajid dalika alxukmu fiiha wa hada casiizun wujuduhu kul wujuduhu kullu dalika saddan saddun li baabil inkaar bi xeyri ilm gis nga téere boobu ñu tuddoon léegi wax na ne wëllëre nañ ak yonent bi ci ñu digal suñu mbokku taalibe yi ñuy bañ di gaawantu di weddi waxu sëriñ si ak waxu ko xam ne ni la wax fekkoo ko ci téere wala xamoo ko na xaw ma nangam keneen waru ko xam kooku njuumte la kon tere ñu ñuy weddi kooku lu dul ñu ñun dañoo fexe nu peeg mboolem branche sharia yi ñu waxoon sànq ne trois cent soixante la loolu nag bis buñ ko peegee ba ñu wax ñu dara peeg mooy nga wër ko ba maîtriser ko léegi nag lépp luñ ñu waxaat te bokkul ci loolu ñu maîtriser boobaa ñu am droit pour werante ci ak discuter ci waaye ku maîtriser gul trois cent soixante yi te trois cent soixante yi benn branche bi rek ku ko jàng di borom xam-xam tànk nag maîtriser woo yëpp yow waroo di weddi nga gis ne ñi gën a ñeme weddi mooy ñi jàngul dara foofu wa qad rawa tabaraani rahimahullahu an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaal inna shariati jaat ala thalathmiatin wa thalath ashar tariqatan laysa minha tariqatun yulqi labda bi rabbiha illa daxala aljanna laysa minha tariqatan yulqi labda biha rabbahu illa daxala aljanna qaala kuntu ya axi fa in kunta ya axi aarifan bi jamici hadihi turuq walam tajid xukma ma ankartahu fi tariqatin minha falaka inkaaruhu eh, wa illa fa tasliimu awlaa wa afdal wa alzamu wa alzamu al adab wa alzami al adaba maa al ulama islam wallahu taala alamu intaha kalaamu Sha'rani imaam Sha'rani bi mu waxee nag ne yonent bi wëlërante na ñoog ma man pour ma wax sama mbokki taalibe ne bu ñu weddeeti mukk mukk mukk benn nit lu dul ñu maîtriser trois cent soixante branche yi nga xam ne l'islam moom la am buñ ko fi fekkul nag am nañ droit weerante ko imam Charani nee na xam nga loolu jafe na trop loolu jafe na trop daanaka Seydi Abdou Aziz Dabbaax nee na xutbul fardul jaame rek moo ko mën a am mooy ki nga xam ne xujjatullahi fi ardihi moo tax tabaraani yi soloo na jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi ne bu leen gaawantu di weddi ndax sama sharia bi yàlla jox ma séddalikoo na trois cent treize branche te benn branche bu ci nekk ku ci tënku sellal ko rafetal ko boo dee àjjana directement ngi jëm euh, euh, gis nga riwaay bi tabaraani mu ngi ko indi moom trois cent treize la wax bale trois cent soixante la wax moo tax ma wax ci gannaaw ne benn la li nga ciy dégg daal mooy ñetti téeméer laak lu teg loolu li nga ciy dégg mooy bari nañ torop yoon yi yóbbu nit ci yàlla bari nañ rawatina yoonu sharia yi boo ci jël rek tabaarakallaahu mën na laa yóbbu chaaraani na nag comme yow mbokk mi xam nga loolu ne trois cent et quelque lañ kon xam nga ne amoo droit di weddil kenn aw yoonam lu dul mu fekk nga maîtriser yoon yëpp ba xam lu ca nekk ak sew-sew ya ca ne te loolu moom du yomb ndax bootul benn bi rek yow doo ko maîtriser benn bi rek waxatuma la fukk bay dem ci ñaar fukk bay dem ci ñetti téeméer yépp kon li ma lay ñaan daal man charan yi mooy nga nangul nit ñi loo xamul nga noppi ci te nga ànd ak teggin ak yar ci boroom xam-xami lislaam yi te xam ne ñoom la fi yàlla teg pour ñu doxalal lislaam boroom xam-xam yi doxal lislaam nag yow boo nee nekkuñ ci dëgg yow mi jàngul dara kon xawma ci looy na yow qultu wa yufhamu min hadha al kalaam tafahuma ma taqabla ma taqaddama fi lfasli saabi wa huwa anna almunkiru laa yazaalu yunkiru albaatil xatta yunkira alxaq wa qaala cheikh ahmad ibnu almubaarak fi libriz qad istadana bacdu nnaasi cheikhahu fi inkaarin ala alawliyaa ahli alxaqi min ahli alfatxi wa qaala lahu yaa sayidi laa unkiru calayhim illa bi miisaani sharci faman wajadtuhu mustaqiman sallamtu lahu waman wajadtuhu maa'ilan ankartu calayhi fa qaala lahu cheikhuhu axaafu an laa takuuna indaka sanwaj kullaha allati yuzanu biha biha fa ida kaana indaka bacdu sanwaj duna bacdin falaa yasixu misanuka bi yushiru ila ma sabaqa min kawnihi yunkiru wa huwa jahil wa qaala fi linsani alkaamil ثم التمس من الناظر في هذا الكتاب أن بعد أن aclamahu bi anni maa wadactu shay'an fi hada alkitab illa wa huwa muayyadun bi kitaabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam annahu ida laaxa lahu shay'un bi xilaafi alkitaabi wassunna falyaclam anna dalika min xaysu mafhumuhu la min xaysu muraadahu alladi wudicat alkitaabu li ajlihi falyatawaqaf an alcamali bihi maca altaslim xata yaftaxu allahu alayhi bi macrifatihi wa yuxasila lahu shaahidu dalika min kitaabillahi wa sunnati nabiyihi wa faidatu taslim huna wa tarkul inkaar an laa yuxrima an laa yuxrama alwusulu ila macrifati dalik fa inna man ankara shay'an min cilmina hada xurima alwusulu ilayhi maa daama munkiran wala sabila ila dalika bal wa yuxsha calayhi alxirmaan lilwusuli ila gayri dalika mutlaqan bilinkaari awwala wuhlatin wala tariqa illa aliman wa taslim wa qaala waclam anna kulla cilmin laa yuayiduhu alkitaabu wassun kitaabu wassunna fa huwa dalaalun fa huwa dalaalun laa taxudda lahu anta maca maa yuayiduhu faqad yakunu alcaamu fi nafsihi muayadan bilkitaabi wassunna walakin qillatu istimdaadika manacaka fahmahu falam tastatic an tunaawil yadaka can maxallihi fatadunnu annahu غير مؤيد بالكتاب والسنة والطريق في هذا التسليم وعدم العمل به من غير إنكار إلى أن يأخذ الله بعلمك بيدك إليه لأن كل علم يرد عليك لا يخلو من ثلاثة أوجه الأول المكالمة وهو ما يرد على قلبك من طريق الخاطر الرباني والملكي هذا laa sabila ila raddihi wala al inkaari alayhi wa baada kalaamin wa qaala baada kalaamin alwajhu thaani an yakuna al ilm waaridan ala lisaani man yunsabu ilayhi assunna wa haada in wajadta lahu shaahidan aw maxmaran fa huwa almuraadu wa illaa fa mata laa yumkinuka eh, wa illaa fa mata laa yumkinuka al imaanu bihi mutlaqan li galabati nuuri aqlika ala nuuri imaanik fa tariquka fiihi altawaquf waltaslim wa adamu linkaar alwajhu althalith an yakuna alilmu waaridan ala lisaani man ictazala min almadhabi waltaxaqa bi ahli albidcati fa hada alilmu huwa almarfud walakin alkayisu laa yunkiruhu mutlaqan bal yaqbalu minhu maa yaqbaluhu alkitaabu wassunna min kulli wajhin wa yuraddu minhu maa yuradduhu alkitaabu wassunna min kulli wajhin wa qalla an yabqa hada fi masaili ahli alqiblati wa wa qabilahu alkitab wassunna min wajhin wa rudda min wajhin fa huwa ala dalika almanhaj manhaj wallahu taala almuwafiqu bimannihi lissawaabi wa ilayhi almarjiu walmaab euh, mulaana alxaaji omar radiallahu anhu nee na nag boo xamee ne nit dafa war a yar boppam ci bañ a gaaw a weddi nee na boo déggee wax ji di nga xam ne dafa tënk rek presque li ma la doon jàngal ci fasl bi ñu paase muy juróom-ñaareelu fasl bi te ma yaatal ko lool ak bu juróom-ñetteel bi moo di nga xam ne gis nga kiy weddi boo tàmmee weddi di critiquer tàmm ko di nga dem ne dangay weddi nen yàgg ci ne dangay weddi nen ba booy weddi dëgg gi jóge ci yàlla dalay bett te mooy ku yàgg weddi nit ñi dañuy dem ba public bi dañ lay tudde ku am fit diw borom fit la foo dem ñu lay applaudisé ne yow yaa yow yaay sañ wax sañ sañ katu wax bi euh, léegi nag sañ wax jooju ngay toppa di ko topp ba faf weddi dëgg boo weddee dëgg ku weddi dëgg rek yàlla nga weddi moo tax daal diingat gu bari boo ko yàggee def ba watul ci dinga nga diingati dëgg te boobaa am na dëgg yoo xam ku leen dingat alku yàlla ñu ci yàlla musal Cheikh Ahmed Ibnul Mubarak dafa wax ci euh, ibrisam nee dafa am benn waa ju ñëwoon euh, ci sëriñam doon ko ñaan digal daal pour weddi benn nitu yàlla ndax daal bind na wala mu wax yoo xam ne daal yooyu moom ci gis-gisu waa ji rafetlu ko mu ne nag comme kilifa la bala balaa bind dara di ko faw mu dem ci sëriñam laaj ko ci ndigal sëriñ bi ne loo ci jublu mu nekk ko dama bëgg a leeral dëgg gi nga jox ma ndigal daal ma critiquer nitu yàlla yooyu nga xam ne ni nit ñi jàppe nañ leen ay nitu yàlla sax waaye xëy na yegguñu fa nangam nangam nee na mu nekk ah yow ci ban style nga bëgg a defare téere boobu mu nekk damay xool ci seeni acte ak seeni parole li ci dëppoo ak sharia ma dëggal ko waaye li ci dëppoowul ak ma teggi ko sànni fële e, tënk ko ci alquran ak sunna kon man balance bi may bi may weddee seeni wax mooy alquran ak sunna góor gi ne ko ah dama ragal nag boo demee ba war a peese seeni wax doo am poids bi poids bi ndax ku ne xam ne ne balance boo ko tegee faw nga teg ci poids moo xam un kilo la wala deux kilo wala trois mu ne yow mi nga xam ne danga nga bëgg critiquer nit yàlla yi ne da leen di peese ci seen wax ak seen jëf poids bi nga xam ne moom nga leen di peese laa xam foo koy jëlee euh, te loolu waa ji xamatul lu muy wax loolu sëriñam mooy bul ko jéem ndax yow même boo amoon poids wu kilo ne da ci bëgg a natte nitu yàlla yëpp am na nitu yàlla yoo xam ne ñoo ëpp ton kooku kan doo mas xam poids am bu fekkee ton nga yore itam di ci natt nit ki nga xam de deux kilos la kooku doo ko mën a nattal moo tax nit yàlla yi bàyyi leen ak yàlla mi nga xam moom la ñuy woote waaye bul jéem ci ñoom dara ndax bu fekkee dañoo orienté wu mënatoo leen orienté bu ñu désorienté woo itam yàq yàqu nañ ba pare boobaa wattu leen moom moo gën di farata que di leen ñooxoo ko dugg ci seeni mbir ba ñu yàqale ñoom bu ko defee loolu Chérif Abdoul Aziz Dabakh wax taalibeem boobu ku ko xamoon rek noppalu ci ndax bari na ku naan Cheikh na Tiyaani nee na ay waxam nañ ko natt ci alquran ak sunna luñ ci fekk nañ ko jëfee luñ ci fekkul nañ ko bàyyi ba tax nga génn ci tariqa bi loo xam ne jàpp nga ne nekkul ci alquran ak sunna fekk yow la sam njàng yeggul foofu waaye loolu mu ngi ci alquran ak sunna loo tax benn téere bu mag bu ñuy wax insaanul kaamil Euh, borom téere bi bi muy nettali dafa wax ne nit ki boo paree nag war nga gëstu ji looy xool ci alquran ak sunna moom nag boroom téere bi bi muy bi introduire téere bi dafa wax ne nag téere bi yow mi koy jàng nanga xam ne maa ngi defar téere bi bëgg koo teg ci alquran ak sunna lépp loo fi fekk rek ci biir téere bi na nga xam ne alquran la ak sunna boo fi fekkee loo xam ne ni mën nga ko dëggal ci alquran mën nga génn aaya bi mën nga génn xadis bi alhamdulilah loolu lañ ci bëgg waaye boo ci gisee benn atte nag boo xam ne mënoo xam aaya bi bi ko indi wala xadis bi nee na bala ngaa di nga teeyal teeyal te xam ne man mi bind téere bi moom li ma bind moom leer na ma nañ alquran ak sunna laa bëgg dimbali yow mi nga xam ne nag amagoo niveau mën a xam fan la jóge ci alquran ak sunna li ma lay ñaan mooy nga tey nga tekkaaral tuuti te tey tuuti xëy na boo guddee fan tuuti yàlla dina la ci may nga xam fi ma tegoon sama wax waaye nag bul profito naan da ngay critiquer wax ji naan lii teguwul ci alquran ak sunna axa ah, kay ci la teguwul tegu yow yaa ko mënagul a décrypter te loolu bari na ku mu dal kuy doog a jàng miinagul yu bari lu mu gis ci critique la jëm ak moom waaye bu gënee dund dina bari lu mu daan critiquer moom mooy dellu sewaat ci boppam à la raison xam ne moom ndekete moom la xam-xamam matul woon moo yembul woon moom moo matlewul woon waaye dëgg-dëgg lii rek ci alquran ak sunna la tegu moo tax borom téere insaanul kamil ne boo gisee sama téere bi loo foog ne nekkul ci alquran ak sunna teeyal teeyal kat ba ba ngay am xam-xamu niveau boo mën a xamee lii fu mu jóge ci alquran ak sunna ndax nee na nangu moo gën a noppale fuuf critiquer ndax nit yàlla boo ko nangulee martabam sax mën nga cee séddu te xamoo ko ci jëmm waaye boo ko critiquer yam dafay xeex ak yow ba gaañ la doon te dundu leen kon képp ku yàlla nattoo nga doon diingatkat euh, ci nitu yàlla yi yow xaw ma kan waaye doo yegg ci yàlla ndax yàlla nag mooy seen parrain te ñoom ku leen di critiquer def leen noonu yàlla mi seen parrain moo leen di jëlal ay euh, devant kon fexel ba bul critiquer téere bi li nga ci xamul daal ñaanal yàlla mu xamal la ko waaye bu ko ci yoon wu njëkk wi nga koy liir parce que boobaa daf lay xañ teraanga ji nga ci am ëllëg moo tax mu ne waalam anna kullu ilmin laa yuayiduhu alkitaabu wa sunna fa huwa dalal ndax man mi bind téere bi xam naa ne bépp xam-xam boo xam ne ñu ngi ko fondé ci lu dul alquran ak sunna téere boobu ci c'est infondé parce que euh, lañ ko tënk tënkuwul ci dara loolu nag man duma ko xam ba pare di ko tey nag di bind loo xam ne tënkuma ko ci alquran ak sunna kon na nga waajal sa bopp loo ci gis mu mën na am référence ci alquran sunna xamal ne loolu laa ci woon loo ci déggagul itam bul yàkkamti te xam ne man mi ko bind leer na ma yow la leeragul toogal ba yàlla defal la ci xalaat bu rafet nga mën koo jëriñoo gis nga ñii dingat ndeysaan lii la ñuy ñàkk ñii dingat duñu jàpp ne ñoom ndeysaan seen déggin mën na yàqu duñ jàpp ne ñoo comprendreul ñoom duñ jàpp ne ñoo xamul au contraire dañuy lire rek commencé di ree di xaxataay di dingat borom téere bi te duñ xam ne seen bopp lañ waroon dingat ndax ñoom ñoo déggagul li waa ji wax mu ngi mel ni ku doon jàng téere bu jafe nga jàng-jàng soo ba ngoon déggoo li ngay jàng nga jekki-yekki mer sànni téere bi ne borom téere bi xamul dara xam nga kooku ku la xam du werante tabarakallahu nee ko rek yéen ñaar kan moo ci xamul dara comme yow dem nga bëgg a jàng téereem wax dëgg yàlla bo bula bu la gënaloon yow moom mooy jàng sa téere waaye du yow yaay jàng téereem bu ko defee kon yu mel noonu moo tax borom téere bi di ci yeete ne loo ci comprendreul daal jàppal ne euh, alquran sun suna ci lañ ko tënkee waaye nag yow yaa amagul niveau dégg ko ñaanal yàlla rek mu may la ba ba ngay té ba muy tée sa loxo pour orienter la ci dégg loolu ndax moom téere boo gis ñuy jàngale alquran sunna nee na du mën a ñàkk ci ñetti point rek lañ koy binde point bu njëkk bi nitu yàlla wax ju ñu wax bu njëkk bi mooy mu kaalamatu yàlla mooy wax ak ñoom daf leen inspirer muy inspiration divine boo xam ne nii yàlla mooy toog yabal ci euh, jaamam benn malaaka bu sell mu inspiré ko taxul nag mu doon yonant waaye yàlla noo koy def xam nga kañ inspiré moo la gën a dégg liñ ko wax kooku boo ko critique xaw mu foy jaar beneen bu ñaareel bi mooy koo xam ne nii moom dafay jàng téere yi Euh, ba gis ne lii mu jàng nii effectivement correspondre na ak alquran ak sunna kooku itam boo koy diingat boo leen delloo ci téere yi di xam ne li muy jàngale am na fu mu ko teg mu mel ni kon loolu la mag ñi di wax ne ñaar moo am kuy yëg di wax ak kuy yër di wax ki nga xam ne dafay yëg di wax la mu yëg moom la conserné kiy yër itam di wax téere ya ko jëlee booy weddi moom mën téere yooyu ngay weddi waaye moom mënoo koo weddi beneen bu ñetteel bi nag mooy koo xam ne li muy wax c'est infondé tënkuwul ci alquran tënkuwul ci sunna bid ay boppam rek la kooku nag képp ku am xam-xam dara ci lislaam boo ko déggee war nga ko delloo waxam jooju te xam ne loolu wax dëgg yàlla tënkuwul ci alquran tënkuwul ci sunna bànneexu bakkanam rek la waaye nee na attention de bis boo koy delloo waxam tey ci bul jël lépp sànniwaat ko ko déedéet lëñ wax ji xool ko xool ko bu dee am na éventuel lu ci tënku ci alquran ak sunna nga jéem a segga wax jooju jëfe ko lépp loo xam ne ci bànneexu bakkanam ak bidaa rek la ko teg nga soog ko ko delloo te loolu dafa laajaat beneen taxawaay ndax bu fekkee yow moom waa ji li mu wax dafa nekkul sa ngir tax gëmoo ko nga weddil ko ko wala nekkul ci sa eh, tabaarakalaaw sëriñ bi la jàngal jàngalewul loolu tax nga ne comme suma sëriñ jàngalul lii rek kenn jàngu ko kenn xamu ko loolu mën na laa dugal ci beneen euh, musiba boo xam ne nii tabaarakallahu doo ci bàyyi xel loolu mooy li nga xam ne nii moom la Mawlana Alxaaji Omar radiallahu anhu doon leeral ci fasl bii nga xam ne da ko gàttal lool ngir xam gu mu xam ne maanaam continuité la ci fasl bi passé te muy bu juróom tabaarakallahu ñetteel bi mu ne kon yii boo ko xosee xam doo gaaw weddi nit nitu yàlla boo gis muy wax ñetti wax rek lay wax boo xam ne daf koy yëg di ko wax comme ba mu koy yëg di ko wax fekke woo ko boo ko di nga nga yàlla trop beneen bu ñaareel mooy yi nga xam ne dañ koy yër di wax xëy na ka koy yër téere ba mu ko jëlee boo ko laajee fan la ko jëlee dina la ko wax nga authentifier ko bay ba ba ngay xam ne ci alxuraan la tënkook sunna kon jarul dingat demal nga gëstu ji li mu gëstu rek bu ñetteel bi nag mooy ko xam ne indi na wax yoo xam ne nii c'est infondé tegul ci alquran tegul ci sunna boobaa boo koy weddi yow it na ko weddee ci alquran ak sunna te mooy gëstul ba xam lu ne li muy wax effectivement tënkuwul ci alquran sunna bu boobaa boo koy def bul ko def ngir wane sa daraja wala sa bopp mais liggéeyal ci alquran ak sunna pour xam ne lii kat yàlla waxew ko woon nii yonent bi waxew ko woon nii leeral ci la ci sa déggin toll yal na yàlla tënk ci loolu pour daaneel sëriñ bi li mu bëgg jàngale mooy daal diingat diingat daal dëgg dëgg dëgg dëgg Cheikh Omar nee na ku amoon xel di nga ko wàññi di ko bàyyi ndax diingat tabaarakallahu dafa njariñ li dafa bariwul te loraange ki kenn xamul nu mu toll ñi nga xam ne jàngale lislaam mooy seen dund ak tere bon muy amru bil maaruf nahyu anil munkar ñooñu lu ñu gisul mu dellu ci alxuraan sunna mën nañ koo critiquer waaye yow mi amul boobu niveau nag boo bëggee lu tëb nga ne gisewu ma ko nii waxew ñu ko woon nii sama sëriñ waxew ko nii kon du dëgg foofu boo watul ci yàqu ngay jëm yàlla yàlla musal ñu ci ci àdduna ak alaaxira bi maxdi fadlihi wa juudihi hada huwa tawfiq min indillah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh barakatuh barakatuh barakatuh